رمضان رمضان رمضان يا حبيب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا بوك جولي السلام عليكم wa rahmatullahi wa bi ñu santee borom bi subhanahu wa taala julli bi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may ñu wér-gu-yaram ñaan borom bi subhanahu wa may ñu jàmm may ñu al mooy sécurité ñaan boroom bi subhanahu wa taala ni ñu duggee ci weeru koor ci bismillah yàlla nañ ci génn ak alhamdulilahi rabbil alamin li nga xam ni mooy koor wax nañ leen ko wax nañ leen tamit koor kan la war ak arkaan yi tey nag ñu ngi ñëw ci yéen siyaam ruuxiya wa ijtimaaciya gis nga koor dafa am ay njariñ njariñ yi ci njëkk mooy dafa am njariñ ci wàllu ruux xam nga sa ruux li koy dundal mooy jaamu yàlla yi comme sa yaram wi li koy dundal mooy lekk naan ak yu mel noonu koor dafay dundal sa ruux ba mu nekk ruux goo xam ni ah ruux yàlla gërëm la koor ñu ne fawaid ruuxiya li sawam bokk na ci koor daf lay jàngal muñ as-sabr muñ waaw yàlla nee na maa ngi am dëgg muñ muñ da muñ lépp loo xam ni borom bi subhanahu wa tere na la ko nga muñ ci bàyyi ko muñ ci di def ay santaaneem muñ ci di def ay santaane borom bi subhanahu wa santaane yi lu mu metti metti metti ngay muñ di ko def waaye ngay muñ tamit ci lépp loo xam ne dogalu yàlla la bu ko bu sa kaw loolu mooy muñ koor nag daf lay jàngal muñ koor daf lay jàngal li ñuy tuddee dabtu nafs nga mën a téye sa bopp contrôler ko ba doo def dara loo xam ne yàlla xaraamal ko koor daf la koy jàngal kon koor looloo tax soo wooree ba koor gi jeex am na diplôme bu mag bu la borom bi subhanahu wa di jox mooy ak taqwa kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun waaw mooy ak taqwa am jom waaw ñaareel bi mooy koor daf lay jàngal li ñuy tuddee fawaid ijtimaiya lu aju ci wàllu social ni la ko koor bi jàngale amul dara lu la koy jàngale comme koor koor dafay tàmmal xeet wi organisation al nizaam koor dafay jàngal xeet yoon ci yàlla muhammad al ittihaad bennoo suumu li yi su ngeen ko gisee yéen ñépp na ngeen àndandoo woor su ngeen ko gisaatee na ngeen àndandoo woore kon gis nga àndandoo boobu nekk benn ci lépp li yàlla santaane ngeen nekk ci àndandoo nekk benn ci bàyyi lépp lu yàlla tere ni ko koor di jàngale amul dara lu mel ni koor ci noonu kon moo tax koor daf lay jàngale li ñu tuddee xubbul adl maanu bëgg maanu koor daf la koy jàngal wal musaawaat bennoo égalité koor dafa la koy jàngal ndax lépp lu ngeen def yéen koy yenn koy bokk moo tax koor dafay def ci jullit ñi ruux ak taatuf gis nga li ñuy tuddee muy sentiment ni ko jullit bi amee ak ni ko ko koor di jàngale na dara lu mel ne moom koor daf lay jàngale li ñuy tuddee rahma yërmande ak ihsaan rafetal jëme ci képp koo xamante ni kii soxla na nga jëme ci moom li ñuy tuddee al ihsaan muy rafetal moo xam ci miskin yi la moo xam ci faqir yi la moo xam moo xam kon koor daf lay jàngal loolu koor daf lay jàngal tamit li ñuy tuddee ah صون المجتمع على الشرور والفساد dafay jàngal société bi ñoom ñépp ñu moytu lépp loo xam ni baaxul lépp loo xam ni yàlla daf koo tere ñépp a koy bàyyeendoo ci koor lépp loo xam ne yàlla daf koo digle ñépp a koy defandoo ci koor koor gis nga kon fawaidu al ijtimaaiya lool la am na li ñuy tuddee fawaayidu sexiya koor daf lay jàngal njëriñu wér-gu-yaram la santé ah assawmu annahu yaudu yuawilu l umma an nizam wal ittihad wa xubbul adl kama anna assawmu aydan Eh, yutahiru al amaa wa yuslix al wa yunadif al badan koor comme ni nga xamante ni bii ci wàllu social leena lay jàngal fii tamit ci wàllu wér-gi-yaram dafay laabal sa butit yi maanaam sa mbàq gi sa biir bi juróom juróom fukki weer fukki weer yu manqué benn maanaam juróom-ñeenti weer euh, fukki weer ak benn yoo xamante ni bi yaa ngi lekk yaa ngi naan onze mois yoo xam ne yaa ngi lekk yaa ngi naan jaadu na nag benn weer nga muñ ko di lekk guddi yi bàyyi bëccëg bi noppal tuuti sa jihaasul hajj bi bi appareil bii reesal sa ñam bi nga noppal ko tuuti su ko defee loolu lim lay jural mooy dafay setal dafay setal bu baax sa biir bi waaye du ci yem ci setal ko wa yuslihul maida dafay réparé bu baax li nga xam ni mooy sa biir bi setal sa yaram yépp minal fudalaat wa rawaas lépp loo xam ni ay desit la koor dafay fexe ba ah setal yépp ci yow kon koor gis nga yonent bi sallallahu tënk na ko nee na suumu tasifu woor leen su ngeen wooree wér mbokk yi ah bu defee kon su ñëwee ci nasaayax tibbiya nasaayax tibbiya ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu médecine nee nañu am dix taamaka jayidan sooy lekk dañoo bëgg li ngay lekk nga mokkal ko sooy sàqami na na nga ko sàqami mu mokk fa inna al ibtila taam xabla madxihi jayid yaazurul xad soo dee lekk te li ngay lekk doo ko sàqami ba mu mokk nga door koo jàllale loolu day indil jafe-jafe sa appareil bi reesal ñam kon docteur yi loolu la ñu wax kon ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu suñu koor mbokki euh, chaîne bi ñuy tuddee AG Pro TV ñi koy seetaan ak di ko déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen di ñaanal kooru jàmm di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu suñu koor allahumma inna nasaluka alhuda wa tuqa wal afafa wal ghina allahumma inna nasaluka alhuda wa tuqa wal afaafa wal ghina assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu